jëwrinu waaw ma ma ngoog waaw njabootu maam Cheikh Ibra Fall waaw jëwrin ji mhm. waaw waaw jigéen waaw waaw toogal mu jëlaale toogal da koy jëlaale waaw waaw waaw waaw ceeb bi ñaata la ton la ton ceeb la waaw kon asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, sëriñ bi Fall ñu ngi lay siyaare sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Mbend mhm. mu maam Cheikh Ibrahima Fall ñoo ngi lay siyaar sa murid yaa ngi nii sa taalibe yaa ngi nii sa alali maam a ngi nii fekk nañ fi alal nag joo xam ne lépp Cheikh Ibrahima ko moom waaye ñoom ñoom ci seen wàllu bopp sa mag ju baax ji nga wóotu muy sëriñ seex jëmb benn dajaloo ñoom ñuy bëgg a liggéey indi fa ab liggéey wax ko sa mag ju baax ja moo leen waxaloon boppam ni leen bind leen ma ci kaw maa jiite daayira bi tudde alal tudde daayira bi alali Cheikh bi Fall alal nag ku ne xam ne ni alal neexe ndegam sëñ am di mii weeram yee neex ci moom sëñ gunda mii weeram yi neex ci moom noonu la sa alal ji neexa ci yow ñoo ngi tuub nag yeex gi nga xam ni nuru na lu yeex gin yéex a si ci yow waaye ab liggéey bu rëy bu Seydina Omar sekk mi yoroon ak mbooloo mi ci ginnaaw mi yëpp doon ko liggéey Cheikh Rafal sa maam ñii day faal ku xool di leen gis ku déglu it di nga leen dégg sëñ daam taalaa ngi nii taxaw xam na li may wax sëriñ Fallou Mbara ngi nii taxaw xam na li may wax waaye sëñ daam gundaa ngi nii xam na li may wax kenn ku nekk ci ñoom lii may wax man nga koo wax te bu wax ji wëree réew mi ak bitim réew kenn du ko weddi kenn neexalewu leen aw làmmañ danoo jëf loo xam ne suñ bët da cee tege ñu koy gis suñ nopp dégg ko ñu jàkkaarloog moom dañu tudd seen bopp alali Cheikh Ibra Fall mosu mooy nag Cheikh Ibra benn yoon diirum ñu ko sosee ba ni Serigne Cheikh Jëmb Fall na àjjana mosuñu ko mooy benn yoon danoo nasoon ñoom ca kër ga ni lépp kër ga ñoo ko yor ca loolu dégg naa sa mag ju baax ja Cheikh Modou Falilou Fall yan na ko sa borom ay leer moo ne woon dëgg dëgg murit lépp sëriñam da koy gàddu bàyyi lépp ëllëgam ñoom ñii loolu lañ defoon lépp sëriñ Cheikh Jëmb dañ koo gàddu woon bàyyee seen bopp boo ko limee mu nuru damu te damu wun dañuy sant liñ doon jëf ci sëñ Cheikh jëmb boo ko limee mu nuru damu damu wun nag dañuy sant dafa mel ni bi ñuy ñëw fekk na ne sëriñ Cheikh Ngounda sa rakk ci bunt bi mu am lu mu leen seereel te ñoom ñii sëñ Cheikh Ngounda ñoo ko taxoon a jóg taxoon a jóg ma gay ñang man doon jaarale jëf ji ak sëñ Omar Dumbuya nga xam ne ñoom bu ma leen fekkoon lii may wax ñoom ñoo koy wax ndax ñi ma ko xamee ni ko raw lan ko xamee ndax jëf ci seen loxo la daan tegee ab dund lan gàddaloon sëñ Cheikh jëmb ak bëggam gépp miir bee ginnaaw yàlla bu melee nee Seydina Omar mii la ak ñi mu àndal mbaar mee ginnaaw yàlla bu melee nee Seydina Omar mii la ak ñi àndal lan teg ca kawit Seydina Omar mii la ginnaaw yàlla ak ñi mu àndal ba loon keroog àllarba talaata xëy na dem daral jënd ak gileem sëñ bi ni ko damaa bëgg bu subaa ñu raaxal ma bâtiment bi Omar dem jënd ak giléem ci bëccëg gi saa borom dikk ak dogalam ci timis mu ñibbi àjjana gileem googu la njëkk a def ci añ bi ànd ak yow ak mboolem njabootu sëñ Mourou Moussa Fall gi ak mboolem njabootu Cheikh Ba Fall gi taxawaayub Serigne Cheikh jëmb ba ngeen yóbbu ko fee jébbal ko maamam. ñëw taxawu ginnaawam ba ñëpp teg seen bët ni defal nañ ko lañ ko war a defal wàcc ngeen waaye moom it wàcc na mu jàppoon nag talaatay Cheikh ji suba la fi bëggoon a ñëw waaye dégg nag ndigal loo joxe muy sa kër maam gee ci janatul waa nga bëgg koo xëy yeesal ko ba mu yeesal peq yeesalaale murit yi wax ni nan la ko bayal ba mu set wicc ñu bale ko defar bâtiment yi ba mu set wicc Seydina Omar mii woo ma ci bëccëg ni ma kat damaa dégg ndigalu sëñ bi ma bëggoon jëfam ji ndigalam lu njëkk loolu yi suñ liggéey bi dem ci indaal nañ fi tonub ceeb mi ngi ci oto bi matt maa ngi ñëw nam daan def par weer suukar saa ngi ñëw meew maa ngi ñëw saabu baa ngi ñëw nag yaa ngi ñëw ak giléem yi lépp yaay boroom jébbal na la boppam bii ak mbooloo mi mu àndal ñëpp ci liggéey Cheikh Ibra Fall bi sëñ Cheikh jëmm nag wan na ko boppam ba ñëpp xam ni sëñ Cheikh Cheikh Ibra Fall farale na Omar ndax wallaay wa taalaahi barki dem damaa xool gileem yi sëñ daam ba yàgg ma koy wax sëñ Fallu ma ne ko man nag sëñ fàllu mun a ma ne ko xoolal xoolal mbaar bi ak Omar Seck juróomi gileem la banque ci biir jëm si kër Cheikh Ibra ma wax ko sëñ Fallum sëñ Mawlini mënuma lépp sëñ bi Cheikh Ibra Fall demul fenn yaa ngi nii toog mi dañ koo dimbali li mu man di ko def du ndeyam du baayam sëñ bi la àndal sëñ bi nag boo ko joxee si lépp mu téye la si lépp nga jox ko tuuti mu téye la la nga ko jox bàyyi la la nga téye sa bopp moom nag dalaa jox boppam ba mu jeex tàkk gi ñaa ci Cheikh Rafal démb laa mas dem këram waaye barke Cheikhul Khadim kii amul kër gu fanaan amul kër démb démb laa xam loolu amul kër dem naa fekk fa ndeyam fekk fa ñaari magam sëñ Abo faala ngi nii Omar amul kër dan koo abal kër gu mu nekk akum njabootam te ci gàttal rek ñeenti million ak téeméer ju nekk fanweer xam naa ko lu mu jaay lu dem ci ñaan gi ci loo xam ne dugg la bokkut ak nag ak gileem bokkut ak matt bokkut ak la weesu nag kon xam naa ci kii dara fa seeni wut a war Seex Ibra sëriñ bi nag Omar du nax kenn waaye kenn mënu koo nax loo yeewu yeewu yeewu mënu nax sëriñ bi waaye loo dof dofit sëriñ mu du la nax fu waay yem nag yaa fa na sa bopp Cheikh Moussa Fall a nii sëñ Modou Mbène Fall a nii mm-hmm. Cheikh Ibra Fall a ngi nii mm-hmm. ñëw nga jàppal fa nga jàppoon tey ji la wàlla gun a aay mm-hmm. sëñ Cheikh jëmb dina la wallu waaye sëñ Amdi Fall du la bàyyi ginnaaw fa nga tegoon sa tànk ci sëñ Cheikh jëmb ñoq leen ndax tegoon nga benn tànk muy escalier bi teg nga beneen soo bàyyiwu rek di nga teg beneen muy troisième waaye nag réew mi ñu nekk ku ci génn yaa ci génne si bopp moom ñëpp la woo ñëpp la tàllal loxoom du ci sëriñub kenn ñëpp la tàllaloon loxoom ku ko jox saw ñàkk ci Cheikh Ibra tax joxoon na la ko Cheikh Ibra bitim réew ñëpp ci dugal seen wërsëg loolu ku mu bokkal Cheikh Ibra Fall xam nga soxna Diagne Cissé nga nee sëñ Moustapha Mbar sa jarbaat bu baax bi nee na yoon wi amul góor ak jigéen boo demee ci digg àll ba gaynde yu jigéen yi ñoo gën a soxla gaynde yu góor yi saa yoo déggee ni gaynde def na gaaf xamal ne gaynde ku jigéen la du gaynde gu góor kee kii day góor waaye jaaña ko man Omar mii day góor waaye soxna jaañ siise mee ko man Fall sa mbooloo maa ngi nii bëgg ànd yow rek liggéey bi waaye nee lim fas ci ñëw gi bëgg nga ñaanal ko nungul ko ko mooy sunu borom yokk safaan wi ca dolli sa biir gi ba loo yéene liggéeyal Cheikh Ibra Fall yéene ko liggéeyal sëñ Modou Mbenda ñu ànd ko yow addi jaay nii ci buntu bi sëñ daam gis na ko mhm. sëñ Cheikh gis na ko sëñ daam taala gis na ko sëñ daam gon na gis na ko te sëñ Fallou gis na ko teg na ci ñaar fukki junni yii mhm. ni moom la jaayante yow ci liggéey bi mhm. matt maa ngi ñëw sa lépp ku ñëw mu def ko ku ñuul mu def ko ku ñëw sénéral dina ko def ku ñëwul mu def ko fii laa ko waxee ne jël leen ko tasaare maa ko wax ci sa kanam moo ni ma li ma li ma namm ci moom ku ñëw ma def ko ku ñuul ma def ko xaaru ci doom xaaru ci taalibe bi xaaru ci jarbaat day liggéey Seex Ibra yoon wi nag noo ko def mu def la ni bu fekkee lu la yoon wi teg nga tegoo ko loo gàcc yoon yoon dina ko gàccoo te loolu la yoon wi mas a teg rek tegoo nga ko waaye tey jii loo gàcc yoon wi yoon dina ko gàccoo na fan yu gudd lool ci ànd ko wér waaye nga ànd koo ñun rek sëñ Cheikh jëmm mii kéemtaan gi mu doonoon yàlla na nga doonaat kéemtaan ci biir njabootu Cheikh Rahim Fall gi ku fi mas a toogal Cheikh Rahim Fall liggéey yàlla na nga taxaw ci ay mbagam ba ñëpp dina séen nga yóbbu liggéey fu kawe sa njot kenn ànd koog yow ci doole Cheikh ak sa rakk yépp ak mboolem njabootu Cheikh ba gi sunu xel dal na bu baax sunu yaakaar dolliku na ci laam laami wun la yaay Cheikh Ibra Fall. jërëjëf sëriñ bi a ngi leen di sant di santit sëriñ Omar mii nga xam ni mooy liggéey liggéey boobu nga wax léegi di ko sant sëriñ baa ngi koy gërëm ndax la mu daan def ci sëriñ Cheikh jëmb magam la ko doon defal. kilifaam it la ko doon defal dafa mel ni loola moom la ko doon defal ndax lépp lu mu mës defal sëñ Cheikh Jëmb rek moom sëriñ Amdi Fall mii la ko defal kon loolu sëriñ baa ngi leen ci sant di leen ci gërëm di ñaan liggéey bi nga xamante ne bii moom ngeen di liggéeyal Cheikh Rafal ah na ngeen am ak wér ak wërsëg ba man koo eggale ci sëriñ Amdi Fall mii sëriñ bi nag nee na nangeen ko bëggee dina ànd ak yéen ci loolu liggéeyal Cheikh Ibra Fall liggéeyal Cheikh Ibra nag képp ku koy def rek yaa ngi liggéeyal sëriñ Touba ndax ku defal sëriñ Touba rek ku defal Cheikh Ibra Fall rek mel na ni sëriñ Touba nga ko defal kon nag sëriñ Omar sëriñ baa ngi ànd ak yow ci li nga bëgg muy liggéeyal Cheikh Ibra Fall ngi la ciy ñaanal itam. nga yàgg fi yàgg mbooloo mi nga àndal yàgg a liggéeyal Cheikh ndax liggéeyal Cheikh dafa jafe danañ la jiñu dof danañ la jiiñ lu ne lu ne danañ la ko jiñ waaye ngeen ànd ak seenu muñ ak seenu ku Pastef ba mën muñ la nga xam ne nii moom lañ leen di wax ngeen sëgg rek waaye Cheikh moom képp ku koy liggéeyal lu ne danañ la ko jiñ waaye nag Cheikh Rafal miy fay sëriñ bi nee na dina leen fay bu baax a baax a baax a baax kon nañu ànd ak sëriñ bi jéem a liggéeyal Cheikh Rafal rek nii ngeen ko defee rek ngeen defee ko noonu waaye dama bëgg nga xam ne la nga doon def ci suñu Cheikh jëmb moom mii nga ko doon defal ndax loola moo ko waroon a def kon yéen ñi ko mënoon ba di ko def moom ngeen ko doon defal mel na ni liggéey ba ngeen doon liggéey ba tey mi ngi fi. ndax lu ngeen mës defal seen Cheikh Jëmb rek moom mii ngeen ko defal kon sëriñ baa ngi leen di sant te fas yéene ànd ak yéen liggéeyal Cheikh Ibra bu baax a baax a baax ba lépp lu ngeen doon jëf Cheikh Ibra defal leen lu ëpp loolu ba ngeen mën a jëfal Cheikh la ngeen ko daan jëfal mbaa lu ko ëpp kon ñoo ngi koy ñaan di ko ñaanal njaboot bi nga àndal di ko ñaanal taalibe yi ngi àndal yàlla sëriñ mi ngi ñaan yàlla na leen Cheikh jàppale ba li ngeen yéene ci liggéeyal Cheikh Ibra lépp rek ngeen def ko jërë ngeen jëf jërëjëf. ñëpp a ko bokk. Mhm. woo nañ ñëpp. Mhm. sëriñ bi woo nañ ñëpp ñu ànd. Mhm. dem foofa. setal kër ga. Euh, la fa ñu lañ fa war a def ñu def ko. raxas karo ya. bay ñax ma. jigéen ñi nekk ca waañ wa. lu waay man ci togg yi rek. nga jàpp ci. incha waaw liggéeyub Cheikh Rafal la boo xam ne bi daal mi ngi noonu ci seen loxo waaw la ngeen ci daan def daal te man ko mhm. sëriñ bi jox na leen ndigal ni mhm. lépp lu ci waaye mën a def rek mhm. na ko def kon kon kon ma dégg nga ko ndigal li waaw nee na ndigal booleeg sëriñ Dame Talla mii waaw muy seen jëwriñ dox seen diggante moom ak oh, sëriñ la sëñ bi doxale seen diggante ak moom booy ñëwati làmb ko booy dem na la yëg jëwriñ loolu lay jëriñ sooy ñëw na yëg ni yaa ngi ñëw sooy dem ni yaa ngi dem waaye day mel ni sa ndigalu njëkk nag fii nga sukkee jaayanteeg moom liggéey bi mooy suba janatul max waa añ ba ak mboolem ko bokk ci daara ji añ bi suba yéen ko gàlloo na teel lool neex lool doy ku ko liggéeyal kër. mu fay la guddi. dëgg la te Cheikh Ibra lay liggéeyal. am kër. incha allah jàmm jërëjëf Fall yàlla na ko Cheikh boo ko waxee dina am. barke Moussa jërëjëf Fall Ndiaga. jërëjëfati Serigne jëmb jërëjëfati Serigne Cheikh Fall jëmb jëmb Serigne Cheikh Fall jëmb yàlla na yàlla dalay leeram ci maa ngi siyaare mbokki alali Cheikh Fall yëpp euh, di nuyu waa réew mi ak bitim réew su ma jëlee nuyoo réew mépp man jiite ci bàyyi ma métti ke message ci njub di ñaan Serigne Fall sax ci moom sax ci man sax ci mboolem ko ne ci daara ji di nuyu suñu moon njaay xarit taalibe yi jóoni bitim réew di ñaan Serigne Fall sax ci moom sax ci man sax ci mboolem ko ne ci daara ji di jël nuyoo yëpp di ko teg ci loxol soxna Jalaba Cissé ma wetti gënn maa gën ko jotaay bi ñoom ñëpp di nuyu porte-parole daara ji suñu waxu Korea jaajëfal lati bu baax sant Serigne Serigne Fall bu baax ci tawfeex ju ñuy defal tey jii bañ jël alal ji ñëw jébbal ko Cheikh Rafal ndax alal Cheikh Rafal Cheikh Rafal euh, di sant waa daara ji nag ci taxawaay bi mel na nag biñ ñëwee fii sëriñ bi delloo nañu liggéey bañ daan taxawee kër Serigne Cheikh Jëmb Fall gépp delloo nañu ko nee nañu mbooleem loo leen taxawoon kër Serigne Cheikh Jëmb Fall mën ngeen ko daggale taxawee ko fii loo fa fa def ci ay togg ci ay lépp rek yaatal nañ ko fii sañ-sañ boo leen fa amoon it jox nañ leen ko fii kon mel na sax ndigal li njëkk ci ñun mooy toggi añi suba yi ndaxante ni fi mu toll nii ndigal li lañ ma wax léegi ne daa bëggoon ñu dem toggi añee foofu ci janatu ñu xamaloon ko ni baaxoo toggee rek sëñ bi mooy dañaan toggi ca kër ga ca daara ji togg ko ko indi ko bi mu ne loolu maa lay woo léegi wax la ci ni nga defee kon men loolu na ci daa ñëpp bàyyi xel xam ne léegi bu sëñ bi wootee wax nañ a la a jëf nañ takkaat laxasaa nag te xam ne sëñ moom li bëgg ala kulli an am te lépp luñ fi liggéey ñu dara jàlle ko sëñ Cheikh Jëm Fall xam ne moo ngi toqi jërëjëf barke secrétaire général bu alalu Cheikh Ibrahima Fall murid bu mag ba dara sëriñ Cheikh Jëmb Fall daan suñu borom doole ay leem tas ci barkeem ñoo teew fii nag ci euh, kër sëriñ Amdi euh, Modou Mbenda Fall xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall murid bu mag ba nga xam ne waa daara gi di alalu Sidi Ibrahima Fall suñu waajo murid bu mag ba dañoo ñëwoon di ko yeesu ci sëriñ bi ginnaaw bu ñu jógee kër sëriñ Cheikh Fall Jëmb léegi nii rek ngir wàcc fa li nga xamante ni moom mooy ceeb ba ñu daal di jubal si fii doon indi xéwal gi li nga xamante moom moo jëm ci euh, mbale mi mu toll ci euh, tonn ceeb ak ñaar fukki junni ñu tàmbale ko euh, liggéey bi waaye di jaajëfal mboole waa alali Ibra Fall yi murit bu mag bu fu ñu mën a nekk ci réew mi ak ci bi ci réew bi ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci njiital Seydina Omar Seck Nourou Darayni général murit bu mag ba Mame Cheikh Ibrahima Fall nangu ndigal waaye jàmbaar Serigne Cheikh Fall jëmb ji Euh, ci Pastef beeg euh, taxawaay bu rafet bi cant ak ngërëm ñeel na leen waaye ñu ñaar baax euh, sëriñ Amdi Modou Mbenda Fall mu yàgg lool ci ànd lépp loo xamante ni nag liggéeyal nañ ko sëriñ Cheikh Fall jëmb nañ ko ko addiya waaye nañu takkaat laxasaay bu baax a baax la ñu war duñu wàcc benn yoon muy la nga xam moom moo ñu war ci kër sëriñ Cheikh Fall jëmb jamono june saa su ne ña ngi koy dinañ ko fas yéenee wéyal waaye lépp loo xamante ni tamit war nañu fii ci kër xalif général des Baye Fall sëriñ Amdi Modou Mbenda Fall dinañ ko def na nga xamante ni no dëppoon nag uh, na nga xam ne la ko sëriñ bi bëggee kon képp ko xam ne bëgg nga ànd ak ñun liggéeyub Sidi Ibrahim Fall bi rek ñu ngi lay xaar uh, soo ñu woowee ci 77 649 95 88 77 649 95 88 dinañ mën a ànd ak yow liggéey bi uh, wala ci 78 534 89 11 78 534 89 11 moom it koo xamante ne woo nga ñu ci dinañ ànd ak yow liggéey waaye ñaar numéro yëpp te képp koo xam ne bëgg ngaa barkeel ci ci euh, addi addi ji nga xam moom la Alioune Cheikh Fall yi di joxe jamono junne saa su ne ñaari numéro yooyu orange wala wéef euh, ñoom ñoom ñaar ñëpp rek ki turu wala ki Omar Seck incha allahu rabbi dinañ ci jot xam naa ko nañu wàcc foofu rek suñu kàddu waaye di jaan ñaanal ñëpp rek saxaadatan wa barakatan wa xaafiyatan fi darini ci barkeb salih ala salihin wa huwal muslihu asadihun sidduhu salatan tuslihu ci euh, darajay murid bu mag ba Maam Cheikh Ibrahima Fall jërë Touba